ملكت ما كان لي بغير مبتغيا ICAM que ICAM exemple sama moroomu jigéen ñi yéen te fi teew invité yëpp ñu ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu ci turu association femme maa ngi leen di nuyu tamit ci turu ku ma nar a topp léegi ci wax muy suñu partenaire muy ajaratu waxa ay dara dafa jàppale dañu jàppoo moo tax ñu mën a ñëw fii tey jàppoo boobu moom nañu moom nañu gis te moom rek moo war a law ci réew mi yépp jàppoo rek moo mën a indi résultat construction nationale di ngeen ma baal nag damay jàmmante wolof bi ak tubaab bi parce que yàq nañu yàq bu xam ni Euh, yenn mbir yi day metti ci ñoo xam ni ñu wolof bu baax bien que man ci baykat yi laa doon liggéeyee moo tax sama wolof bi tani tani bu baax mais yéen ci seet ndax tani bi baax na am <laughs> man koy xool sama bopp association bi euh, sénégalaise des femmes des universités moom bu mu juddoo yàgg 1989 la jub wante 1991 lañ ko soog a reconnaître ñu ni nag comme association femmes diplômées université la suñu warugal yépp mooy def képp jigéen mën a dugg école képp kuy jigéen mën a dugg te du dugg rek ko soxna Mame Diarra waxee léegi du dugg rek mooy mbir mbir mooy ñu tekkante lépp lu nga xam ni tere na mu continuer école ba mën a nekk lu góor ñëpp mën a nekk ni ñaan comme ñu ko waxee léegi ñu ko ko firee ni égalité yi benn la ci xalaat ak ci ñaan benn la ñu ne dañu def lépp nag pour ku dugg école mën ci yàgg ba yegg ci supérieur yegg ci université yi li yegg ci école de yi ba bés mu mën a nekk loolu soxna maam Diarra wax bokk ci ñu nga xam ne ñooy décider ci réew mi wala kuy décider ku jiite ku ñuy décider ci réew mi ASDI nag euh, bu ñu tëralee loolu ba pare ñu ni ren nañu ñëw seet si njëkke ci Touba njëkke ci université boo xam ni dañuy gis ni université exemplaire université boo xam ni jëlul yoon bu nga xam ni université yi moom la ñuy faral di jël te nga xam ni du suñu yoon bu ñu bind dafa nekk yoon bu nga xam ni ñu fi nekkoon di tëral muy tubaab bi moo ñu ci dugaloon ba ñu yegg foofu du yoon bu ñu xalaatal suñu bopp ba léegi éducation bi en nekkul loo xam ni suñu xalaatu bopp la te ICAP nag ñëw teggi loolu yëpp xalaat xalaatu bopp def benn vision bu nga xam ni benn la te ñëpp dinañ ci topp parce que dafa nekk vision bu réforme fu bi foofu lu ñu njëkk yéemoo ba ñu waxee nu ñu tëralee éducation avec les centres d'excellence, avec les écoles dispersées à travers le territoire national, en tenant compte pour chaque région de sa spécificité, de caractère, de développement, pour pouvoir développer un enseignement ici. En tenant compte du fait que nous, nous avons eu à quitter nos familles, à aller très loin pour euh, avoir cet enseignement, à sortir même des frontières du pays, des fois, et à être déstabilisés par ces, par ces de tout cela, disperser les campus pour garder la source, pour garder la personne dans sa source et évoluer. Nous, ne peut que dire bravo, parce que c'est une approche particulière, c'est une approche de développement, c'est une vision éclairée. Nous voulons Donc, portez cet exemple. Chantez cet exemple. Faire de telle sorte que cet exemple soit l'exemple à suivre dans toutes ces universités naissantes. Et transformer celles qui sont déjà là depuis la coloniale pour qu'elles s'inspirent de cette vision qui est reconnue, comme vous l'avez dit, par tous les services, dont l'UNESCO, au niveau international. sëriñ bi waroon naa ni doore ci njaar ak ci mas mi du fàttale wante dama fekk sëriñ soxna Maam Jaara ak discours yu fi génn yëpp daf ma daf mu téye ba nga xam ne foog ma ba ma ci loolu mais njaar mi te dina masawu lool ci étudiant boobu te gaañu ak ñaar yi enseignant yooyu ci yoon ñu ngi ciy présenté suñu njaal au nom de toute l' association ak au nom de tous les partenaires avec lesquels ñoo xam ne ñoo ànd tey fii thème bii nag ñu indi fii dafa mel na fii rek lañ ko waroon indi dafa mel na fii dong lañ ko waroon indi te lu ci neex mooy heureusement que ba ngeen ko diffuser nit ñi mën ko dégg parce que lu bare réeri ndir rek te réeri ndir bi dafa yaatu yaatu boo xam ni dootoo seetati sax mbir mi nu mu demee da dem rek ci ay supposition dugg ci supposition yi ba nga xam ni dootoo xamati foo jëm su ñu nee waxtu ñu nee violence faite aux du violence góor rek man jaar waxul ba léegi violence am na ay violence pernicieuse violence yi nga xam ni dina la tere dund te kenn du la laal violence yi nga xam ni doo dina la tere uti xam-xam te kenn du la laal violence yi nga xam ni ci wax lay nekk ci jëf ak ci bët ak ci lépp nga xam ni yow da ngay nekk rek di ko subir ba dootoo nekk ci dara su ma nee nag fii lañ ko waroon euh, doone parce que réponse yi dafa bari te wuute xam-xamu ñeneen ñoo xam ni nekkuñu ci suñu culture dafa nekk réponse yoo xam ni dañ ko jële ji bitim réew di ko tegal ba nga xam ni nit ñi sax dootuñu ci gisati seen bopp su ma nee fii nañ ko waroon defee parce que sëriñ bi wax na léegi lan mooy jigéen ci islam sëriñ bi na léegi lan na euh, euh, sëriñ Bamba gise jigéen ak nu mu ko tegee ci ci wetu góor mu nekk benn ci éducation fii nañ waroon doole te doore nañ ci ñu ngi ciy sant yàlla bu baax parce que réponse variée yooyu fii lay jóge parce que da ngeen ko jëlee ci suñu culture jëlee ko ci suñu aada jëlee ko ci lislaam bu nga xam ni moom la ñu gëm te moo moom ci moom la ci réewlu islam la ñuy dox su fekkee ni dëkku lay nañu mooy suñu religion ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñu te te teg lu may def rek mooy sant sant yàlla doon sant yàlla ci loolu te di leen di sant sëriñ bi ba nga nangoo ñu ñëw fi ak lu ñu ñu ngi ciy sant bu baax di la ci jaajëfal bu baax yaakaar naa ni duma ci teg yeneen baat yu sore parce que am na ñaar ci ñu ñu indaale ñu nga xam ni dañu war a dugg ci exposé bi te day yàgg nu ma introduire waxaat waxaat tamit dina introduire euh, organisation te di leen wax tamit nii kii ci sama wet di jaamu njaay moom tamit kenn ku tekki la ci mbiru jigéen ñi ak seen sécurité ci biir Sénégal ak ci région bi yëpp ñu yore euh, région bi jaamu njaay maa ngi leen di jël bu baax Ave